dama yaakaar ni nag autorité yu bees yi xamuñu ampleur wu wala importance bu secteur yi dañu war a bàyyi langage politicien ak effet d'annonce à côté xool économiquement ce qui est possible ñu teg ko ci kaw taabal bi ay entreprise la ñu yor dañu am lu ñuy utiliser pour mën a génne un produit fini. li ñuy utiliser lépp yokk lépp papier emballage yokk na kilo bi doon jar 700 mi ngi ci 2000 francs le sel bi doon jar 700 francs mi ngi ci deux mille 2500. levure bi doon jar 9000 mi ngi ci 15000 améliorant bi doon jar 17000 mi ngi ci 28000 loolu lépp yokk farine c'est vrai mooy ingrédient bi nga xam day utiliser occuper jusqu'à 70 à en pour cent du coût de production mais du farine bi kese. te qualité bi sax ça laisse à désirer. mais fardeau la boo xam ne bii entreprise yi attanuñu ko secteur boulangerie attanuñu ko bu mu leen ko yan. l'État avait mi plus de cent vingt milliards sur le pain dindi taxe yépp pour que mburu mi mën a jar soixante quinze. kon cent soixante kon ci diggante lépp yokk yow nga ñëw ni da ngay wàññi mburu te gàddu woo ci dara lan la. il faut ñu poser question boobu c'est impossible boulanger bi continuer ci loolu mënul nekk il faut ñu wax ko ñun dañ fi ñëw fii état moom dinañ jàkkaarloog moom xool li ñuy liggéey lan la parce que entreprise nañ état moo tax mu yem ñu ba def lii mu def na ko boulanger xam il faut ñu xam loolu kon li ñuy taxawal mooy ñu ngi invité ñëpp ci benn confédération nationale des boulangers et pâtisseries du Sénégal boulanger di waxee benn kàddu parce que bu boobaa boo wooyee sama mbokk boulanger yi bu ñu leen wooyee ñoom ñi perte confiance ci seen dirigeant yi dinañ amaat confiance ba fu ñu leen woo wuyu fa 72 heures moo tax ma ni doyul boulanger yi pour ñu régler problème bi mais ci ni boulanger yi taxawaalu la. dañoo toog ba juyaar rek secrétaire général bu gouvernement bi annoncé comme annonce boobu moo defan ni mburu mi def nañ ko 160. affaire yi ñu ngi waxtaan ci lañ defee réaction ni ko naka ngay wàññee mburu te yow waxagoo farine ñaata lay jar et puis mburu bu dee jar cent soixante noonu fan la ñuy jëlee dix francs wala bu no client bi joxe cent soixante quinze noonu fan la ñuy jëlee quinze francs yu ñu ko delloo. mooy ñuy wax premier ministre Ousmane Sonko ni ko secteur boulangerie ak li ci aju lépp état bi ñu ngi ko doon xayma ci cent milliards par année. li ci nekk ci ay doomu aadama yu fay liggéey kenn xamul nu toll ñaareel bi ci des mooy mburu mën nañ ne daanaka li ëpp ci dundu Sénégal mburu la secteur boobu nag ama nañ yaakaar ci moom ak gouvernement bi que bu ñëwee jafe-jafe yi ñu nekk dina wàññeeku waaye du dooleeku ñu koy xamal ni ko nag secteur boobu tey jii mu ngi suuf di dund coono boo nga xam ni mënul yàgg ndax ci jamono bi ñu toll rek boulangerie ñu ngi ñeen ñi ñu commencé déclarer pour jaay seen boulangerie parce que seen yaakaar dafa tas parce que la ñuy mooy xañ na bu ñu amee régime bu bees seen jàngoro dina saafara waaye régime bi du ñëw di dolli seen jàngoro. jafe-jafe bari nañ parce que bu ñu xool demee tout historique. avec l' ancien régime bi muy waaj euh, bi élection bi waaj ñun dañu nekkoon dans une mouvance dem grève le ministre d'alors Fofana dama koy rappeler fii mu ngi ko fekk euh, Mauritanie mais bu mu jógee Mauritanie ñëw dégg suñu mouvement Dimari këram sax la ñu invité à une réunion presque de vingt et une heures à vingt deux heures vingt trois heures pour éviter kaw boobu parce que on était à une semaine deux semaines trois semaines des élections présidentielles ñun nag ay responsables kilifa lañ dañu investir suñu alal ci réew mi di def emploi yu bare bare di def chiffre d'affaires yu bare bare état bi di ci am tam lu bare bare bare en terme de taxe ak tout ça mais gis nañ ne état bi bi ñuy waxtaan ak ñoom pour affaire wàññi mburu bi ku wax ni mu demee lépp yàlla dogal na fekkee naa ndaje bi primature ndaje boobu le secrétaire général adjoint de la primature moo ko doon diriger un certain Diop lañ fa wax ñun boulanger yi leer na dañ ne ko mburu mi pour mu wàññeeku ñun lii la ñu gis 7012 francs au pire des cas 6500 ñu ne ñu ok ñu boole ñoog le chef rural du commerce de Dakar ñu dem bureau ñu waxtaan def ay simulation prix foofu moom nag il a rendu fidèle à la primature liñ travaux yi ñu fa def mais ñun gis nañ ne leneen lañ ñu indil keroog bi ñu convoqué jam ñaajo dañu ñëw fekk meunier mooy ñiy defar farine bi ñu ngi ci biir bureau ministre bi di réunir bi ñu génnee en voit leur visage nga xam ñu dugg commencé waxtaan ñu ne déet ministre bi dafa ndànk lu ngeen waxtaan ak borom usine farine yi ñu soog ci ñëw ñu ne ah 4000 de lañ am foofu moo tax ñu bëgg mu wàññi mburu mi pour mu jàmm fanweer ñu ne ko non loolu dina xaw a doy waar comme c'est une c'était une promesse te xam nañ ne état bi période boobu kenn mënu ko arrêté pour mu wàññi les denrées de première parce que c'était une promesse électorale mu am nag ay mesures yu mu fa waxoon que dinañu xoolal lu mel ni électricité bi lu mel ni carburant bi lu mel ni intrant ainsi de suite ainsi de suite loo xam ne dina ko teg soulager ñu pour lii ñu mun ci continuer mais gis nañu depuis lors ça fait des mois ñun FNBS bëggoon nañ ci woote réunion bu yàgg région yi ñooñu ne teel na comme état baa ngi soog a teg lii nañ leen dawal xool une semaine deux semaines un mois deux mois xool leen parce que kilifa su loo waxee dara da nga koy déglu soo toogee diir na gis na lim mu wax defu ko peut-être nga soog a mën a toog waxtaan mais ñun éviter nañ loolu yëpp on a écrit ay correspondance le ministre du commerce on a écrit le premier ministre mais depuis lors amuñu benn retour ci loolu peut-être bu loolu amoon waxtaan yooyu peut-être RBS tey du convoqué réunion bi peut-être booy yuuxu pour di ko jàllal ci presse kilifa yi dégg ko mais peut-être euh, Sénégal patriote lii baax na ci peut-être bu ñu gisee tey ci presse bi ne boulanger yi daje nañ waxtaan nañ ñu ngi yuuxu crédit comme on dit peut-être dinañ ci wut ay solution ñun na réew mi jàmm rek lañ ci bëgg ak dal parce que suñuy njaboot ñoo fi nekk suñu so sañoon Sénégal day am jàmm xam na ne le contexte mondial est très difficile xam nañ loolu